sàcc nañ ko maa ngi nii ci tapis bi damaa ñëw fekk sama sama bagage yi dajj ko jël li ko li ko filmé woon nii ñu lem ko ñu ko dugal ko ci biir sàcc sama téléphone bu ne woon fii nii dajj bagage yi jàmbur yi fii yëpp ay téléphone fi nekkoon téléphone yi fi ne woon sàcc nañ ko jël nañ yëpp jël nañ téléphone yi saare bagage yi jàmbur yi fii mbuus bi bagage su Asanatu Balde moo nekkoon fii ngi laa ko fekk ci aéroport bi xoolal bi pochette bi mi ngi nii bagage yi ki nekkoon am noonu na téléphone ak beneen ay yeneen bagage sàcc nañ ko gis nga bii dañ koo daj nii lañ ko daje sàcc ko moom itam maa ngi ne aéroport Dakar ci tàpp bi buusee gu ma met fii ay bagage yi jàmbur fi nekkoon ñu daaj dajji nañ ko ba jël bagage yi mu xool ban tur la sax Mbay saar fii ay fii ñaari ay cellule la fi ñaari cellule ay cellule cellule cellule ma fi nekkoon sàcc nañ ko jël nañ ko dem fii amoon na ay téléphone yoo xam ne as booy boo ko moom poste bi la nekkoon léegi lan nga ma def lu dul lu dul jël sa bagage filmé ko laxas ko ba mu dëgër mais loolu nit man comme ça ñu dajji ko jël bagage yi lemaata la ko tëjal la indi la sa indi la sa valise quoi tasaare bagage yi nii maa ngi nii aéroport Dakar bu gisee guma benn mètre di ko topp bi laa nekk ñu la fekk bagage yi sama valise. sàcc nañ ko maa ngi nii ci tapp bi damaa ñëw fekk sama sama bagage gars yi dajj ko jël li ko li ko filmé woon nii ñu lem ko lem ko dugal ko ci biir sàcc sama téléphone bu ne woon fii nii dajj bagage yi jàmbur yi fii yëpp ay téléphone la fi nekkoon téléphone yi fi ne woon sàcc nañ ko jël nañ yëpp jël nañ téléphone yi. saare bagage yi jàmbur it fii mbuus bi bagage Assanatu Balde moo nekkoon fii ñu laa ko fekk ci aéroport bi xoolal bi pochette bi mu ngi ni bagage yi nekkoon am noonu na téléphone ak beneen ay yeneen bagage sàcc nañ ko gis nga bii dañ koo dajji nii lañ ko daje sàcc ko moom itam maa ngi ne aéroport Dakar ci bi buusee gu ma gisal fii ba ay bagages yi gàmmu rek fi nekkoon ñu daaj dajji nañ ko ba jël bagages yi ma xool ban tur sax Mbay Sarr fii ay fii ñaari ay cellule fi nekkoon ñaari cellule ay cellule cellule cellule moo fi nekkoon sàcc nañ ko jël nañ ko dem te amoon na ay téléphone yoo xam ne as booy moo ko moom poche bi la nekkoon léegi lan nga maa def lu dul lu dul jël sa bagage filmer ko laxas ko ba mu dëgër mais loolu nit man comme ça ñu daj ko jël bagaas yi lamaatal la ko tëjal la indi la indi la sa valise quoi tasaare bagage yi nii. maa ngi nii aéroport Dakar bu seeguma benn mètre di ko topp bi laa nekk ñu la fekk bagage sama valise.